voilà li ma doon bëgg di def appel ci Kaolack waa Kaolack ma la ñuy ñaan ngir yàlla at yonent bi euh, bi ñu commencé inscription yi euh, Kaolack tout début dama xam sama mbokk saalum saalum yi euh, tout début dañu fa fees dell te boobu ba léegi aussi tegguñ seen loxo sincèrement mais tey moom li ma jot euh, disons c'est la moitié des autres jours te xam naa ne des na lu bëri ñu war a inscrire euh, bëri nañ macha allah ñu war a inscrire nañ bañ a kii euh, bàyyi ndeku parce que lii des ci jours yu bëriwul te xam nañ ñuñ ko seqal duñ ñu may dara boo xamee ne ki ko seqal te du la may dara nga war a fagaru may ñaan sama mbokku saalum-saalum yi di ñaan sama mbokk patriote yi bu leen ko tayal bii ci cooki final la mooy ça veut que bii moo des ci élection yi ñu am lu ñu bëgg bu soobee yàlla raxasoog seen délinquant oh, pa pa ah, baal leen ma rek euh, je yéen may dégg j'espère dama takkoon écouteur bi euh, comme je disais rek euh, plein de ci voilà euh, doyen Ndoye bul wax dara après dinaa la ko yónnee defal double zéro deux cent vingt et 77 739 26 21 boo ma ooyee ci foofu rek incha allah dinaa la wuyu 26 21 comme je disais début bi. Euh, début bi vraiment euh, chaque jour ñu ngi jot ki fichier yi début bi c'était extraordinaire ba ba demb ci lundi bi même chose taux c'était pareil presque tay nak taux bi te la fa xam nañ donc li nek Sénégal yépp xam nañ ko may ñaan sénégalais yi li région bu ñu wàññi bu ñu teggi suñu tànk fañ ko tegoon ba mu jaaxal leen ngir yàlla ak yonent bi dellu si delluwaat leen xam nga koo xam ne xam na koo xam ne amul euh, inscrireul nga dem fait l'effort nga dem récupérer ko mu ñëw même bu dee benn nit la rek c'est quelque chose de plus ñu ngeen dem inscrire parce que léegi mu jeex léegi mu jeex incha allah li doon métti yëpp bu soobee yàlla ñu ngi ci cooki final bi

lii amul lenn luñ lay may loo loo liggéeyut doo ko tari loo jàngut doo ko tari doo amatuñ temps pour di toog di ñee benn doomu aadama ñun fi mu nekk c'est à notre tour ñun ñoo war a ñee ñi ñi ci diaspora bi ñu ngi dem inscrire comme c'est pas possible ñi ci diaspora bi ñu ngi dem inscrire comme c'est pas possible xoolal man yàlla la ma yàlla yonent beeg bàyyi ñes dimbale ma rek ba bu ma am goitre tellement que chaque jour tu restes du matin au soir di uyu di di wax nit ñi ooyal ki c'est tout ça sur le diaspora bi du Sénégal de parce que manchallah, équipe ba fa nek sama région boo Kaolack équipe ba fa nek ñu ngi def liggéey bu am solo may may may de passage c'est pas fini c'est pas fini sama mbokk Saalum Saalum remerciement bi dina après mais ma wa comment dirais-je wa Ndangaan wa Ndar gu wa, wa, wa, waa euh, comment dirais-je Léona <laughs> ñu ngi def liggéey bu extraordinaire Ndorong partout à Kaolack Bongré partout ñu ngi def liggéey bu extraordinaire Euh, ma me remercier parce que je je les connais mais mais samay gars tem nga wax leen ñu xawale ñu ngi ci digg cooki bi ñu ngi ci digg final donc ngir Yalla...

toog fii bu kenn waxee nga tontu ko wan ne yaa ko gën a bëgg Pastef yaa ko gën a bugg projet bi boo koy wan ne yaa gën a bugg projet bi mooy nga dem fexe képp koo xam te mu leer na la si dafa tayal dafa war a dem inscrire nga dem récupérer ko boo koy boot boo koy téye boo koy yéegal ci moto boo koy yéegal ci oto mu dem nga pas à pas mu dem inscrire c'est une question de quelques minutes même bu jaree nga yendu fa jendu fa parce que ça parle ton avenir mu ngi mel nga xëy di jàngi da ngay bugg a nelaw le matin mais ci sais que a quelque chose qui t'attend donc il faut nga jóg des fois da ngay tëdd fii muy neige ci biti nga am envie sanguwaat ci biir kii mais looy def da ngay ne bër jóg danga nga naan damay bañ noonu ba ree ma damay bëgg tàkkusaan Sénégal bu ñuy lim gor yow limaale ma donc da ngay jóg dugg ci neige bi dem liggéey yi yéen nag c'est pareil au même. buñu ñu buñu non bi ré té pour que noon bi bañ ñoré nañ leen dem ñu inscrire ñi nga xamné dañu wara préparer sen pièce d'identité ils auront 18 ans quelques temps quelques mois ngeen dem régler lolu c'est à c'est à vous de jouer maintenant yéen yéen a war ñi nga xamné ne war nañu dem jël aussi nee nañ ma pièce d'identité ñu fa fess del instant bi boy inscrire mu nga dem ko xamné ne jotoon na inscrire mun na dem laccé ndax pièce d'identité mi génn na ñu joxaale ko ko il peut faire les les ñu ngi dem gars mais yokku leen plus on veut plus on veut plus de 3 millions d'inscrits on veut plus de yeneen un million yu récupérer sen pièce d'identité ngir yalla at yonent beeg Maulana Cheikh Ibrahima Niass at kuñu ñu ci barke yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem len ngeen inscrire ju récupérer walé sen pièce d'identité ku munul na jàppale répétition la mais li rek mo ki bu xoolal d'accord nit ki nopp pour déglu la beut pour gis la xol len déglu len lu leen wax lu neex Yo man sama non dama koy déglu muy wax lu ko neex man may jog da def di def likoy metti donc bu wax nañ leen may nopp bu bon bi wax xam nga di raconter connerie yow nga nekk ci euh, li nga xamne ne lay en avant nga nekk ci fi di parce qu'on a plus le temps on depuis des années ñongi tontonté fi nekk di ñuy xex parce qu'on n'a plus le temps. Maintenant, on doit jouer. C'est à nous de jouer. Donc, amatuñ temps pour mbel-mbel bi temps pour inscription yi temps yi dem jëli pièce d'identité yi dem temps yu dem defari ki amul pièce d'identité daw daw nga xam ne euh, am 18 ans mu taxaw di def li naq di li naq di am sama carte de vote dala koy jaral la koy jaral. barki cheikh al man damay jël vol dem ba Sénégal pour dugg ci euh, ci ci ci ci comment dirais-je salle de vote pour benn une minute benn une minute daf ma koy jaral ma jël def euh, six heures à huit heures de temps ci vol wàcc Sénégal pour dem voter pour une minute des fois bu bëree ba bëri cinq minutes la nga yegg si ñu xool nga dem dugg voter mais gis nga cinq minutes boobu duma ko may Macky Sall tey am nekk am sama bakkan sama teyu bakkan nekk en bon sante war a tëdd fii naan noo garaawul euh, Matar Ndiaye dina dina voté non non non man lay naq di Macky Sall laay def mooy lan damay jël vol wàcc Sénégal voté te loolu nag pour ma mën ko dafa def fekkoon ma dem uti ji pièce d'identité barki yàlla man ba ma gëjoonoo am euh, pièce su Sénégal pièce d'identité Sénégal ba temps wu ba ñuy def passeport euh, yu noir yi xaw ma yu bleu ya xàññaaral ya ca laa amoon mu réer xam ngeen ne loolu yàgg na ça date plus de presque 30 ans plus de 30 ans amoo woon pièce d'identité lu jëm ci Sénégal mais Pastef moo tax ma dem wàcci dem un certificat de perte dem dugg xoolal jour biñ ma bi ma taxawee ñu photo ma rek ba mu leer na ma ne dinaa am pièce d'identité jour boobu dama dama je pleurais tellement que j'étais contente parce que dama ne billet avion bi ma jël pour ñoo defar ci fii pièce d'identité jar na ko waxatuma la nag jour bañ ma joxee sama carte de vote loolu ba tey mu nga fa tege police yi dañ doon ree comme c'est pas possible dama taxaw ci digg tali bi di fecc te gaa munuma fecc keroog dama taxaw di digg fecc xoolal policier yaa ngi taxaw ma ne leen xool leen Macky sàll tey rek mu xam ne yàlla rek ay buur dama téye loolu tellement que j'étais heureuse sama pièce d'identité bi fa ma ko jenc macha allah yàlla ba ca cat dugg bañ naa ko ba du ma toog moom parce que doom bu góor la duma ko xoolal rien j'ai mais j'ai d'autres nationalités yooyu laay doxantool bu réeree fatafat ñu jox ma ko mais bu Sénégal bi dama koy jenc foo xam ne la ma gën a fonk machallah allah fa koy jénc du ma ko kafoy du ma ko donc amna lo xamné boko amé muy lu am importance lu mun changer affaire yi <laughs> jartaree barki yalla jour biñ ma joxé sama pièce d'identité keroog dugg rond point mairie Kaolack ci rond point bi la taxaw bobu jité fol xamatuma parce que bobu daf ma lèr ne ma donc 2019 damay damay voter. ñu jox ma pièce bi ma dem inscrire xoolal jot sama pièce d'identité taxaw ci digg rond point mairie Kaolack bi di fecci xam naa nit yi dinañ ne kii dafa dof na parce que j'étais heureuse parce que boobu war dinaa mun a fexe te fi mu nekk nag dinaa wax am kàddu ca réew ma am doon vrai citoyen depuis boobu ba léegi xoolal ma jenc ko foo xam ne sama noon du ko gis du foo xam ne lu dul yàlla ak yonit beeg bàyyi foofa la kafuma ci réew ma ci du ma ko nëbb sama cassette de sécurité sa mooy kees yi yi lay yi ngay caisse de sécurité yi banque yi foofu laa ko jël dugal waaw fa may dugal samay ay titre foncier samay samay affaire trésor fa laa dem dugal sama pièce d'identité bi kafuma ci réew ma ci waaw

législatives, législative les voté dañu gis am la nga fa ngay indi sa taxaw ci inscription yi nit ñi inscrire pour la première fois dans l'histoire du Sénégal la opposition gagné c'est parce que on a travaillé ça avant dugg guenné nit ñi buñu tayal nañ leen dem récupérer nit ñi ñu dem inscrire ñi wara outil ji pièce d'identité ñu dem parce que c'est bien beau ñu nek fi ñun ñëpp ñu xamanté ak xamante ak Awa Gueye fallu ñaa ñun ñëpp si soxo ñun ñëpp xamanté c'est beau mais xam nga lan mo gëna neex le 25 le 24 ci ngoon cew le vingt à midi ñu xam affaire bi fu muy basculer nga lu fofu pour ñu am ko il faut ñu liggéey ko tay ku la monde pas le cas il faut nous pour nous. am donc vu que c'est comme ça il faut qu'on travaille Bon nombre bi nañ ko continuer Sonko na toog Sonko na toog ñu Nous ko ne que nous, on est plus puissant que toi Nous on connaît que nous, on est plus nombreux que toi Nous on connaît que nous, on croit plus le projet euh, que que vous ñun ñoo ko war a woon ko xoolal foo ñu nekkalee ci naaj bi ñun ñu nekkal la ci waaye yow soleil bi explosé te c'est le nag ñu démontrer ko ni ko ñun on est des vrais patriotes dañu ko won ko ne ko ay gor nga ko séqal won ko ne ko xoolal doo ñu jam naaj yi won ko ne ko ay gor ak gor tànk ak tànk mbagg ak ñooy dem toogal ñu lijjanti ko ñëw indi nga téyal ñu ko ca téye gu gën waaye suma gaay yi nañ leen dem ñu inscrire ci nañ leen dem ñu yokk li ñu inscrire gars ñu ngi inscrire mais on doit multiplier d'efforts parce que on a peu de temps parce que ay bandi salté lañ ko sékkal ay bandi salté ay voyou lañ ko sékkal duñu wax lu baax duñu def lu baax duñu dégg lu baax duñu nokki lu baax duñu def lenn lu baax comme que nit nañ yàlla jàppale ñu bëgg ñu ba de teg ñu ci camp bi nañu jël exploité li ñu yàlla jox incha allah ñëpp ak ñu koy ñeeyee car macha allah mais nañ la ñu wan ne ñun on mérite ce qu'on jeex na tàkk loolu rek laa buggoon wax affaire bi nag du ga du gudd ngeen baal ma loolu rek laa doon bëgg a wax euh, nañ ci jàpp rek incha allah ma yeggali projet bi ma doon bind euh, dessiné jàppale leen nañ ci jàpp rek incha allah fàllu ñang nañu oté fallu xamna né ne France mais nañu oté Sénégal kuñ munti o xolal nañu ne dañu dem sax bañu ñu ñu man c'est pas mon problème l'essentiel li ma bëgg sama objectif naa ko atteindre té macha chapeau Kaolack chapeau chapeau chapeau mais nañ redoubler d'effort parce que tay bima jot c'est vrai c'est vrai macha ko musuñ ko xalat mais je veux trois fois plus li ma tambal, ba ñu ben ba léegi damay xaar ba fin inscription yi ma toog fii di leen koy limal suma salum salum yi gàcce ngaalaama yéen mais nañ ko tegaat ci kànk ngir partage leen ko partout na dem muy Saint-Louis Thiès Louga Fatick fu dans les villages dem leen inscrire ndax suba añ ba neex bu ñu la la ko dem suba an. kon jóg leen ngeen dem Kevin macha allah oote leen Sénégal nañ ñëpp dem inscrire surtout diaspora bi yéen a ngi def loo xam ne c'est extraordinaire ñoo ngi mel ni ay njàmb macha allah da ngay xëy suba ba ngoon jot di orienter nit ñi ñuy dem mais nañu fexe ñu ni diaspora bi ku ci nekk oote seen famille oote seen koñ say am di jàmb bul xolal nañ la jéppi c'est pas problème ndax bu méttee ñun dañ koy yëg. dañ bu méttee dañ koy yëg du moment que bu méttee dañ koy yëg te fii c'est l'occasion ñu génn ci métti boobu nañ leen oote nañ leen oote bañ nañu baax na dossier baa ngi nii mais nag doo oote rek yem ci da ngay oote di ko gidde di ko gidde fexe ñu dem jàpp ko dem yóbbuñ ko mu inscrit xoolal ñu ne la tey whatsapp bank fi photo la ne kooku nga xam ne kooku léegi c'est ok nga jëli beneen ñi ñen nit ñi ñu ngi dem Jakarta yi machallah chapeau à vous chapeau mais on redouble d'efforts c'est tout merci encore et loolu rek la woon Maguette Diallo Diéry loolu rek la ma sœur loolu rek la woon ngeen ñu déggante ba beneen mais nañu dem inscrire inscrire amuma jotu tantôt ma Samba tantôt ma Demba Dana tontu après mais pour l'instant gaming midi, inscription la dama bëgg a fal président depuis boobu nag 2018 bi nga nekk ci di daw di daw ba léegi ba yàlla ne la dans quelque mois peu de mois bu soobee yàlla la nga doon dugg añ ba na sotti waaye waaye damaa bugg a lekk damaa bugg a añ di ree kon nag pour ma am loolu il faut ñu liggéey fi mu nekk ni ñu dem inscrire ci ñu war a def uti pièce d'identité ñu jàppale leen ñu ut di d'identité ndaw yi 18 ans c'est encore beaucoup plus facile ñooñu extrait de naissance la certificat de résidence nous dem déposer cette pièce d'identité c'est facile ñi nga dem inscrire inscrire maintenant tu vas tu fais la photocopie de ta de pièce d'identité recto verso nga dem out certificat de résidence dem taxaw ñu inscrire la jox la sa papier nga commencer demi valable bu bu génnee nga dem récupérer que valable comme tout le monde mu leer la nag ne tey nag yaa ngi door a def li métti Macky Sall ndax kart bi rek moo mun a métti Macky Sall leneen du saaga du waxal ko naq naqadi ndax xoola nii li italien naan da koy chivolare da koy chivolare parce que ñooñu ils sont pas normal gouvernement boobu donc li nga xam ne moo ko mën a métti moo may moo dugg ci urne bi ñu ne nii ay tous ces gens ma jël sànni jël benn bi nga xam ne mooy bu wóor bi moy le président Ousmane Sonko lem ba mu nice nga ci enveloppe bi ba urne président lu ngeen def wala ngeen koy ces gens-là ils continueront à parler tant que yang la yalla ngi may dundu di len may carton wax dañuy wax on n'a pas le temps de parler on est au temps de réagir xam nga réagir c'est ça ni n'y dañuy tardel euh, mais c'était juste pour vous dire encore de plus nañu daw nañu daw gaaw nañu inscrire inscrire inshallah rabbi euh, di tous les détenus de les saisir. ñi ko sur les disons presque 600 personnes 500 et poussière mon neveu Abdou Karim Diop vous avez battu le record de tous les procureurs vous avez battu le record monsieur euh, procureur Diouf récupérez. récupéré ni fi aw qui a battu battre record bi mais nak record. bi suba la dana musa Il bu yàlla ne waaw da ngay c'est pas enfermer ces jeunes dina tax mu wàññi dara ci seen gëm les les les les les seize yi ngeen ça fait bientôt un an bientôt un an ñu def ko ci famille ne surtout ñoom am ci ñoo ne famille politique xamuñ woon luy luy yëngatu ci politique maintenant c'est des purs purs patriotes moo tax bu ngeen jàppee dix xamal leen ne yéen ñu génneel benn vingtaine trentaine de personnes et ça ça va continuer jàpp leen kooku li pro xam comprendre guñ ne projet bi c' pas l'être humain Ousmane Sonko le projet c'est autre chose nee naa leen depuis le début ce truc là on l'a ici on l'a ici on vit que pour ça c'est plus fort que nous c'est comme l'amour vous xam nga da ngeen nous c'est par en nous enfermant djel djel djel euh, dougal wala nga djel keneen ñom ñom fadilu ñom ñooñu ngeen jigen ngeen djel leen dougal leen pour ñu né euh xar mo valeur Sénégal xoolal fii moo tax bu ñu waxee ñu naan eh, eh, tubaab yi du ñu dem àjjana ma ne leen de xam bu dee àjjana fonk doomu aadama kese kese kese moo tax doomu aadama moo tax yàlla di dugal eh, nit àjjana te bu dee ca loolu li ñuy dugalee àjjana il faut ñu doo dóoraat kart gi parce que ñii ni ñu fonkee doomu aadama Sénégal da ngay feebar ñu naan la ah waa lii te boo dee ñu indil la nag

foog ñu liggéey liggéey bi mooy nañ leen dem ñu inscrire ñi ñu nekk ci kaso bi ñu ñaanal leen yàlla xoolal xolu muñ ba ba yàlla génnee leen ba yàlla génnee leen le ce qui est mooy le triple des triples mu ngi am nit ñaa ñi gën a duggaat te dañuy gën a duggaat li leen koy won mooy xol leen ñi dem ñi ngeen jàpp ak ñaata nit ñooy dem di inscrire à chaque fois bu ñu ma yónnee fiche bi damay xoree eh, ma ne ko Macky Sall il a pas compris xolal suba lay comprendre suba lay comprendre naanut ay garabam mais Macky Sall suba ngay comprendre récupérer fiche yi jógee ci région yi yëpp nga xool nga xool billaay tu devais donner tes démissions boo gisee loolu moo tax nag yàlla baax na yàlla nañu yàlla may xolu muñ mais ñu bañ a jóg ci li nga xam ne mooy suñu vision li nga xam ne liñ naan focus nous nañu xool benn direction la am mooy amener le président Ousmane Sonko au palais loolu lañu am le reste c'est pas notre problème wax leen ba suba ngelaw ngelaw ngelaw surtout ñun nañu dem inscrire pour amener le président au palais il nous faut inscrire am après une pièce d'identité pour voter une carte de vote donc pour l'amener là-bas il faut ces deux ces deux trucs am pièce bi nga xamné moy tax nga voter nga lool mais leneen munu ko xuloo taxul mu ki ko xolal leneen munu ko motax tax yek yeeg maire yeeg parce que ñom tay surtout maire yi surtout jigéenu Sénégal jóg leen ngeen dem parce que ñom yaakar nañ ne bo amé 40 ans 50 ans boy déposer da dafay génn parce que ñom nenañ nañ nañ ne ñooñu pour ils sont pour le gouvernement alors que c'est pas le motax nak yeen ñi nga xamné vous avez plus de 40 ans 50 ans 60 ans j'aime kaw dem len yéen ngeen dem inscrire ño xamne boudé amuñ ñu dem inscrire jappelé seni dom jappelé sen rew ngeen lo xamne ñepp koy bok c'est pour tout le monde le Sénégal est pour tout le monde donc jóg leen muy goor surtout ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi ñoo war démontrer les lingères bul tayal ngir yalla jogol nga dem inscrire. Inscrire, fais-le pour vous-même. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes neveux. Nous nous inscrire ngir yàlla gorni, inscrire, góor ñi nyep inscrire, inscrire nous ñu ndam voilà Inch'Allah voilà Badi. allez bonne euh, bonne soirée à tout le monde Merci, on continue à parler parler parler mais l'essentiel est dit moi nañu dem inscrire inshallah Ni amul pièce d'identité ñu pièce de bu soobee suñu borom. Yalla, may ñu ndam ci lépp lu ñu ya yaakaar yaa rabbi lu ñu bëgg Ya rabbi Yalla. allez bonne soirée à tout le monde.